this hand.

Pegang ini dik. Saci. Basing mo, basing mo ba rin? Ubulim birak na luwan nila isan. Wani mo ubulim birak na isan. Dupite. patro dupite. Yang ini fat ko dupite. Tapi dupite ilai wakal basing mau basing mau balik. jëbi Macky moo fi des wax leen dëgg day jot de <clears throat> jëli Macky mbaa réew mi naax saa yi jëli ji Macky mu gënal ni suñu bakken gënal ñu suñu dund jëli ji Macky moo fi des assemblée nationale booy yi félicitation boo leen matul milit yaa ngeen koy gérer parce que caaro yi Medina ak fépp boo yaa ngi xeex mais problème bi mooy politiciens yi bi ñu waree doon benn li ñu dajale soirée de gala bu ñu ko génnee woon léegi ñu gën xeex bi xeex bi daa am yu si manqué yu bëri ci côté des civils Macky xam nga lu mu leen wax man amoon naa suñ fi jógee fu ma jëm ak lan laa war def comme moom moom moom Sénégal wala da ko doon direction bi pale la de amul ku leen téye amul ku leen mën téye amul ku leen war a téye ndax yenn moom seen réew yenn la jeunesse yenn moom seen réew li lay waru suuli ngàcca ngaalaama gendarmerie nationale depuis 19 heures lañ leen ne woon ñu dugg intervenir pour député yi ñu bañ ba GIGN la Moussa Fall mujjee yónni ñu ñëw malmené député bañkat yi député patriote yi député askan bi génnee leen ñu dem pour jàllale amendement bi projet de loi bi toll woon nañ foo xam Macky daf ñu tànnal président Sonko tànnal jóg président ñu nit bu ñu soxla xam ban genre coup d'état la ñuy am l'essentiel na fi Macky jóge rek xam nga ñun moment yi fu ñu toll soxlaatuñu tànn na fi Macky jóge life case of mars 2020 ba waxoon naa leen tour général bu war a relever en cas de coup d'état ba tey ça est d'actualité lu ma waxoon boobu ba tey moo nekk général de brigade Yoro bi ma daan tàmm jotal Yoro Yoro Kandè ñëw au cas où moom du wax depuis deux ans trois ans ma ci delluwaat heure bi déedéet parce que jour boobu live laa nekkoon di joxe ay tour fàttaliku leen du wax code député yi avertir naa leen dernier avertissement tey lay jeex tey balaa ngeen ñoo yóbbu couvre fa nday seen kër yi balaa ngeen ñu fa seen oto yi balaa ngeen ñoo yóbbu couvre-feu ñu fa seen njaboot yéen député jàllale ngeen loi bi Sénégal kenn dootu ko jiite ndax Macky Sall n'est plus notre président horizon 2035 horizon sulli maire Timon mo gën wor ak Pa Samba Sall dem sulli ji seeni néew mo gën wor Macky horizon 2035 assemblée mënuma ci wax xam nga lan moo tax mënuma ci wax élection yi ba dernier jour néna naa bu len voté wallu yéwi bi Sonko demee Pikine dama joteeg yéen bi Sonko démé Mbàkke dama ak yéen fu Sonko jaar ak wa PDS dama jappante kep kuy patriote ndax jour boobu dama genn ne bu len voter voté ko ngi campagne khalis Amadou Ba ngeen bañ yeen ñep c'est que foog ñu logique suñuy wax tay wa PDS ñew def li su ma signé songu len xex day melni damay delu wat ay pas en arrière fekk lolu xol rom na ko yeen bi ngeen bolo doon ben ne da ngeen ni and te man ma xamul ñi seen intention ku ñuy wax ak kuy bokk toog di réunion dem yi placé booy dañuy sóob doo lii gars yi état affaire mafia la tey waa Wallu ñoo téye nii combat bi mais tey xoola téyetuñu combat bi ndax tey xale yi comprendre ñu ngi ci terrain bi léegi nag dem ni ñaan yéen ñëpp combat bi du leen nëbb de assemblée nationale loi bi mënul jàll ndax amadu Ba signé ko te Sonko kaawu Sonko mooy gën sedd kaawu Amadou Ba Amadou Ba li nga sàcc sàcc nga xaalis sàcc nga xaalis sàcc nga lu ne lu ne def nga ko lu ne xaalis bi nga sàcc nag génne ko teg ko sur le terrain ñu wàccee Macky Sall après yow yaa xam nooy def ak ñoom mais doo mos a nekk président Sénégal c'est que man dama dugg du mu fi nekk naan la gauche droite yéen sàcc ngeen lekk ba suur di ngeen jot a sàcc tuuti yéen ñi nekkoon ci gouvernement d'accord leen ak Macky Sall li yéen la ñuy ñaan ngeen jël xaalis teg sur la table ñu concrétiser combat bi parce que système la ñuy xeexal ñeneen la ñuy xeexal. orange dina def communique Israël seen juif yooyu nekk Sénégal ak Moussa Fall seen Zola bu bees bi ak Macky Sall 23e bi ma ku leen ne France moo fa nekk tout ce qui est Zola tout ce qui est la gendarmerie actuellement c'est géré par la famille israélienne bu nekk foofu Sénégal tey ñoo xëy ñoom coupé seen réseau mobile yenn sénégalais yi. ay doomu ndoxoneem ñoo coupé seen réseau mobilière sénégalais yi orange dina commencé di réagir orange dina commencé di ci xëpp kaani nii actuellement parce que du moom moo coupé seen réseau du orange moo coupé seen réseau c'est la famille Perez voilà ñoo coupé seen réseau tey mais c'est pas orange dëkk bi nag toll na foo xam ne moment bi yéen kese yéen a ci des. parce que Macky Sall boo leen ko mayee mu am confiance dara rek ko jaaxal guddi nervi dootul jóg kenn dootul jóg yéen kese am droit jóg yéen kese am droit toog mu def lu ko neex ab jaam nag ku bàyyam jóge Mauritanie moo tax amul benn compati si yéen gis nga nit ndekete nit bu juddeewul ci suuf si du am égrégore suuf si say maam bu ñu jógewul ci benn suuf doo am yërmande ci xeet boobu doo nawloo xeet boobu Macky Sall en grosso modo defatuñu ay la ñun sénégalais en grosso modo Macky Sall defatuñu ay la léegi nag solution bi mooy assemblée bi gaa yaa ngi fa guddi gi nii ngeen di jóg concrétiser balaa 6 heures du matin ngeen dégg waxuñu leen arrêté nañ Macky Sall de buñ ko arrêté foo coup d'état la buñ ko reyee si ngeen si xam ndax yaa ngeen ci vrai wala foo faux coup d'état léegi coup d'état bi daratul naan c'est vrai c'est faux rey la. booy amu leen appui de mais man loolu waa Pastef ñoom ñoo def seen soirée de gala dajale seeni 113 mais nag gis nga politicien koo ci gis mu ne la non coup d'état baaxul di jaay républicain ak régalien koo dégg mu ne la coup d'état baaxul am na intérêt bu muy sauvegarder koo dégg mu ne la coup d'état baaxul ci politicien yi bu ci Ousmane Sonko laa koo dégg mu ne la coup d'état baaxul am na lu muy nëbb ndax armée on s'en bat les couilles bu ñu toogee ak képp ku def dañ la def ba def defar naa la loi bi jàll na génn ngeen Macky loi bi jàll na toog à partir du 2 avril par force les hommes de tenue vont se battre entre eux parce que hommes de tenue yi am na ñoo xam seen dignité moment yi mayeetu leen Macky Sall jiite leen yéen yéen nag bu leen ko mayee ñëpp la fañ nañ ñëpp a ngi jooy yaa ngi des morts ci week-end bi yëg naa ko hôpital cardiologie yëpp ndax lan Macky Sall day def troisième mandat si am na si benn adjudant gendarmerie boo xam crise cardiaque moo ko biir biroom lan moo tax mu dee moo tax mu dee jom ak courage ak fit ak jom fit gis nga gis góor am lu nuy gëmee sa bopp yow da nga koy ñefe passif xex li fu mu toll ni ay génnee arme la teg si bopp ñu doomu mu daanu fa la xeex bi toll boo leen ko defulit commerçant yi yee eh, denrée de première nécessité yi commencé leen ko denc en stock dëkk bi sonnaguñ commencé leen ko denc en stock commencé leen ko denc en stock fii la une semaine saaku ceeb bu leen neexee jaayee ko cinquante mille yenn la jeunesse Macky Sall li mu def nii pour kawate réew mi objectif bi leer na la foog ay bakkan daanu mais fokk ñu dugg pale te bakkan du daanu xanaa lacrymogène moo leen di rey mais pistolet mënatu leen rey parce que pistolet bi leen nar rey mooy rey Macky Sall moo tax kenn dootul pistolet woo dañu lacrymogène woo kon rëbës am nañ fa ay blessé am nañ fa ñu succombé ci xeex bi la bokk un pour cent de l'armée un pour cent laa la wax ànd ñoo ko Macky Sall ak Moussa Fall microbe yeeg ñoom Denis Sassou Nguesso ah ay Alassane Ouattara mais yéen armée sénégalaise te am na officier bu leen ko laaj mu ne am na ko ko laaj man la maire général est que yow di nga nangu ñii ñii di garder suñu palais bi ñoom ñuy jaay nii ne ñoom ñooy ay militaires yor seen ikoon di xëbër xëbëri ci biir dëkk bi est-ce que yéen armée sénégalaise war ngeen nangu loolu ba ay israéliens di leen andil ay compagnie ñuy wër seen président nekk ci ay pic-pic pick-up ba yéen ay militaire wala yéen policier ñu dóor leen balu bopp est-ce que yéen di ngeen nangu loolu yéen la rek ñun yéen lañu formé ñun yéen lañuy fay suñu xaalis bëgg jàmm nag bu yóbboo ba ñu rey leen bàyyi fi Macky Sall yéen a xam mais couvre-feu bii ngeen di waajal du fi amee couvre-feu du am Sénégal état de siège du fi am nit ñi respecté ko ndax Macky nekkatul président Macky n'est plus le président gars Bala loi bi abrogé assemblée nationale muy def 48 heures rek di yéeg ak wàcc Amadou Ba signé ko ngeen ni fi nekk di ñu ray toog ci télé ay code article de Brett Jackson code article de Michael Jackson code article Elvis Presley code article Mme Serrafal, code article on s'en fout de vos codes et de vos articles xam nga lu ñu soxla dem jëli ji Macky Sall nekkatul ci yoon projet de loi bi war woon tax jàll ndax Amadou Ba signé wul mais moom defatul yoon yéen ngeen wax ay code ak article eh, xeex bi du xiif du mar du rafle deux cent cinquante grammes moo koy def xeex bi cerveau moo koy def te cerveau conviction la deux cent cinquante grammes mooy def xeex bi xeex bi ñun xam nga lu ñu leen defal ni motivation mais mënuñu leen encourager dem maa ngi si yenn boy naan ma lan bu fekkee xaw ma ban sujet bu ma leen ne woon euh, Ousmane Sonko victime d'empoisonnement ñu naan ma il faut encourager eh, ku bëgg ku la encourager da ngay jéggi sa yaay waxuma ak sa yaay parce que man dama war ma yaay j'aime trop ma maman mais comme papa laa gis nga xuur fi nga joge fi xuuru papa bobu nga joge ngay wat fexé ba yok sa bay fit bu mu déma doxan sa yaay mu ñëwaat kattu ko yow nga judd pour sa bay bobu encourager la mais c'est pas en ce moment là ngay ñëw diñu xol nañ ni ngay waxee ça n'encourage pas dans l'armée bo rayé ben capitaine ben capitaine xam ngeen égal à ñaata personne égal à camp ennemi égal à ñaata personne benn officier bu dé feulé au minimum war ngén ray yén au minimum 1000 wala 2000 personnes mais Sonko dee na nga dégg ñaan naan la boo ne Sonko dé né dañuy lafen ngén po bi Sonko dé né dañuy lafen ngén po bi bu féké dañuy rende Ousmane Sonko pour jëli Macky ma ñàkk sama ndak sama bay man ko ko def ma fay la parce que ñun na fi Macky joggé nañu respecter Sénégal lañu wax nekkatuñu ci ay personnes Ousmane Sonko. Mom, mo déplacé ak di ay gis nga gars dañu politiciens dañu débat bi motax tay ma len way bobu dañ carte fi di plan A B C D E F G non merde dañ dougal Boy bi ci lu nek quoi ba fin temps Boy bi il avait raison kon ay ko wax du neex nga wax du neex nañ ne. bas day dem élection mais gars yi foog ñu waxante lu possible ak lu mun nekk dëgg moom ma sonal bu ñu yemoon fi ñuy yem bii heure jeex na mais waxloo nañu Sonko ba naxloo ko defloo nañu Ousmane Sonko lu nekk ba mu ngi nii mag ñu bëri dañ naan déet moom kat amoon na ay plan xeex noonu moo tax man leen xeex bi politiciens yi moomu ko. tey nag xam nga tey lan moo tax ñu xeex bi ñëpp foog génn ñu dañuy dóol jeunesse bi génn nañu politiciens yi génnul bëgg ne kenn dañuy dóol ñoom ñoo sañ te génn tey bii heure tey waroon na fekk tey opposant yëpp nekk ci kaso bi bu doon Ablaye Wade tey bii heure 1988 bii heure Ablaye Wade mu ngi ci biir kaso bi ñoom toog na Mazmine Diop bii heure ñu ci biir kaso bi Ablaye Bathily bii heure ci kaso bi Landing Savané ci kaso bi. mu jaañ fada bii lu muy xale xale Idrissa Seck bii heure ñoom ñëpp ci kaso bi dama ci xam dama ndax dama daan yóbbu añ ñoom ñëpp dañ leen daan noq ci kaso bi bii heure pour mën a dugg assemblée nationale yéen tey kan lañ tëj kan xale yi politiciens yi seetaan nañ leen yéen a war jël seen responsabilité en main moo tax depuis bu yàgg ma dégagé génne ci corps politique bi nekk ci corps vivace bi

Macky Sall du ay ñaanu yaay du ay génnee wenn moo koy jëlee si réew mi Macky Sall dog baat bi ko fi jëlee deretam la jaay kii mënul jaay deretam jaay armam jaay ruwam ba pare dem toog noonu te leen di ñu ndeyam mënta ne man dëgg moo ma sonal Macky deretam moo ko fi jëlee Pastef je ne vous condamne pas mosu leen xeex muy rëy làmmiñ nag da leen ci doon boole. léegi nag seen rëy làmmiñ bàyyi nañ nekk nag xeex bi di euro nangu leen ko génne def ko ci xeex bi moo tax ngàcce nga la ama patriote yi cottu ndeygu la ndax France France ay ay femmes daanaa a fi nekk Amérique ay femmes daanaa na fa nekk yéen ñu bari woo ngeen ma ma ñàkk leen kersi na leen bu ma kenn yónnee dara patri Pastef ñooy financé ndeyu xeex bi ndax ñoo fi def seen financé seen soirée de gala seen benn cent millions bi ngeen am France ma ñàkk sàmm tey boo leen ko financé woon tout de suite sur le terrain balaa six heures de temps ñu jeexal coow li aywa te nag Pastef yéen ëpp intérêt yéen yéen a ëpp intérêt ci financé xeex bi yéen Pastef kenn amu ci intérêt yeneen parti politique yi coow lee fi nekk ah. bu leen neexee toog ils s'en battent les couilles ils ne seront jamais cinquième président yeneen parti politique yi kan moo fay cinquième président kan. kan yéen ngeen xam ne tey bu ñu demoon tey coup d'état procès yi basiiru kenn mënu ko tëj même bu dee France sa toogaa tax système bi Bassirou kenn mënu ko tëj ko kenn mënu ko tëj bu ñu révisé waatee procès yi tey doo leen jël def li la Lamine Diack defoon jël benn huit milliards teg sur la table gars yi jël quatre milliards dawal jëlee fi Ablaye Wade Ablaye Wade ëppoon Macky xaalis foofu dàq ko maye quatre milliards la ñu teg sur la table def lépp essence. nit ciy lek lek ñu ci dund dund ñi ci doon pauvre sama classe ge batay ñu ngi pauvre mais jakarta Lima tal ci jakarta senegal kenta loko. ko dem len gossas man nañ ma séré damay dawal jakarta ba kaw nak jadd ci kii tal ndayam tek ci ay pone pour peuple bi genn ñu job man job bobu la xam job sax da ngay dawal jakarta ba tip buntu senegal kaw nak dem len vérifier image gossas la joggé 20 h dawal sama jakarta bu ba Kaolack def ko essence ba mu fekk taal ndeyam dawal ko mu dugg ci Sénégal bi ma wàccaat ñibbi ça c'est la guerre man loolu laa gëm ci xeex mais yéen tey boo yuñ si jox jakarta pour ñu taal ko gisuma ñaata jakarta laa fi jënd ci combat yi ëpp na douze jakarta ndekete booy dañ koy liggéeyee kenn taalu ci man li ma taal ci jakarta ëpp na cinquante kan laa ko doon taalal Macky Sall nii yéen ñi newoon tey Macky Sall dafa daw génn wi nekkuloon place de mais àll bépp ñun enseignants ñoo taaloon ndeyam ak Youssou Touré xam combat tax ma ñeme combat bi xam ni ñuy fale nit moo tax ma ñeme lii moo tax ma koy teg ci code accident combat bi calcul moo koy def léegi ay combat suicidaire lañ toll yi dafiy jóge wala ñëpp ñàkk man fa laa toll terre bi gis nga ni ñu koy garder noonu BRT bi da ngay dawal moto ba jëpp ndeyu peloton gendarme taal moto bi moto yëpp essence la taal ko bàyyi ko mu dem seen kaw. moto amna bu defé contact choc auto bi day dóoraale ndayam boy dem len xol 2011 Kaolack naka lañ ko don def sans su sacrifice jël xaliss bi tal ko fakk ñeñ ñeme ko sans du sacrifice wàcc ci terrain bi xamni ne kenn dootu leen téré fetal fakk ñeñ ñeme ko de prisonnier politique yéna leen mëne libérer moment yi nag GIGN mooy agir ci terrain te GIGN dara.

dem ngeen ci glace bi sol seen yére pingouin naan fraîcheur ba doyal fraîcheur boobee la gars yi ne ngeen jël ko teg ko ci terrain bi ñoom ñu def ko ci safara soosee ñu nekk pour am fraîcheur bi ngeen amoon bay def soirée de gala opposant yéen ñi ma woo naan ma ay combat bi ñaata la ak jox ma kii wax kii ma seen xaalis parce que yéen ëllëg doo leen falu bëgguma kenn xeex ëllëg naan la noo laajal diw man ma financé won tel xex financé wu gat man wa Pastef ñuy financer xeex bi wala xol boy civil ñu génnee len ci ndayam ñun li ñuy maslaa ci suuf ñu ngi koy négocier su suuf metti métti dañuy déposer ndayu makki au plus tard le 2 avril le 3 avril ñu leer nañ ñu makki dootu ñu jité té bu ñu tul nak yeen Pastef encore une fois Politicien, yi leen jëlee fi makki bala béy di woy muus Pastef jox leen civil yi génn def mouvement xamna lu may wax. Pastef jox leen ñi xaalis bi ñu wàcc xeex buñ naree dem ba le 2 avril Macky war ñàkk ma ñàkk sama ndey bu ñu suulul Ousmane Sonko man dootuma live dañuy suul nday Ousmane Sonko doo a suul nday Macky Sall Macky du demee noonu moom kese bula le 2 avril fekkee mu leer ko ne armée day jël Sonko day ñàkk moom day ñàkk te ñàkk Sonko égal à 7 millions de pertes psychologiques vitesse baa ngi yéen sauver bakkanu Sonko kon kon yaa gis yàlla te xaalis bi ngeen doon dajale c'était pour sauver la vie de Ousmane Sonko pas la vie de votre parti politique mais la vie de Ousmane Sonko Macky Sall ne va pas quitter sans Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko yéen a ko war a dem génnee vite fait temps boobu ñu ñu ngi assemblée dinañ dugg palais yéen ngeen katta ndeyam dugal xaalis bi gars yi wàcc xeex ndeyam. armée jël ay responsabilités jël lépp ñu mën a sécuriser ñëpp Ousmane Sonko bakkanam rëcc wa ila loi bi jàll Macky Sall dirigé waa bu loi bi jàllee ba ñoom Alassane Ouattara gars yi def li ñuy def ba ñëw xam nga Macky Sall dàq na français yi commencé na dàq France bu génnee France ba pare après dañu la suñu compte ñun nag moment yi c'est le moment où jamais ngeen profité rey nday waa ji wala mu dal suñu kaw moment bi xam nga lan moo fi des gàtt sa gàtt sa bi Sonko doon wax. def leen sen ñak ci xex bi ñu gagné combat bi si semaine bi Macky Sall quitté xalé ñu ci terrain bi ah, ay ak yépp combattant ya ngi fa demb boy yu pirip jëm sa nañ door li door dóor nañ ñu bëcëk bépp dóorante nañ bëcëk bépp ñun moto yi du daw ñet la wa central jappagum kenn ki mu ngi rebeus man sama élément ñet lañ jappagum ma nga ak seen tour ak seen yépp Net. depuis démb ma ngi yux di wote way wolo renfort way wolo renfort tay nak dama leen ni ñaan tay ci guddigi ni bu kenn nalaw combat de nuit fokk mu gëna fréquent tay ci guddigi bu kenn nalaw c'est que makki fokk ngeen am ay brigade nocturne gat sa gat sa mu ngi gatsa jot gat sa gat sa jot na Ousmane Sonko newoon na combat final bi fan la Dakar fofu la dem pour génne Macky Sall patriote def leen sen loxo ci xex bi renforcer booy carte crédit xam nga tey lu ma communiqué crédit internet amul maa ngi ko waxaat nekkul orange moo coupé gaay a coupé ku mën a financer pistolet seen 10 euro 20 euro yooyu ngeen yónnee li laay war a suivi di ngeen koy jënd carte crédit wala ngeen def ko seen portable direct fexe ko yónnee crédit orange pour gaay am crédit seen denrée de première nécessité yi bu leen ko fàtte ku am njëgu jënd arme nag ku am njëgu jënd arme xam nga waaye ñun lu ñu soxla ay arme ay arme la ñu soxla bële passé bi ñu Amadou Ba di rey le 17 si la ñu nungu si lañ jot jàpp su may 6 fusil à mooy bi ñuy jàpp suñu délégation booy boobu ak un certain jéeju bi boole woon leen on a besoin d'armes dëgg moom moo sonal Nous sommes dans un état sans, dans un état sans droit ni foi. On a besoin d'armes. Comment nous financer armes, pour accélérer la procédure, pour nous coup d'état maqué, armée de la responsabilité, nous yobou Sinon, yen l'en Il yobou. a nak armée, boulen nangu couvre-feu, police, boulen nangu couvre-feu, parce que vous ne serez pas armés et nous, nous serons armés. gars comment financer arme pour combat bi arme la leen wax de man nay de li ma leen Je vous wax financer au plus tard vendredi

code la ñuy xeexee jàpp leen ci ay armes de guerre la ñu soxla ak ay mine mine cherul Guinée Bissau ay 750 800 nga am ay mine man mun naa leen jox code booy am fit dañ jëli fa ay mine ñu miine town bépp dugal nday fépp ay grenade Bissau mine cheru fa grenade tam cherul foog naa ne booy ay 60 000 60 000 ñu génne leen fépp ay grenade soyo pare ci combat lañ jëm dañuy dee dañ leen rey mbaa ñu rey ñu c'est à vous de Macky deretam par force ou rien basuma basuma mbaru soyez prêts si cinq 06 05 59 96 00 ngeen ñëpp dugal leen code yi gars yi sànni ko yi booy soyez prêts soyez prêts booy ñun ñun duggaguñu ñun samedi la ñuy ñun ñu ngi réunion ñun fi lekk samedi yéen laay teg si code ngeen dugg Dakar yi ñun nañ fi jëlee yi ba pare rek après on va